dañoo ñëwoon fii ENSA tey pour waxtaane mbirum euh, feebaru tuberculose bi sëqët su tarsi ñi faral di dégg ndaxte dafa soxal plan international Sénégal te liggéey boobu ñu koy bokk di ko lëkkaloo ak euh, ministère à travers programme national de lutte contre la tuberculose at tamit ñi nga xamante ni ñoo ŋànk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram muy district sanitaire de Thiès ñi fi teew tey ànd ak ñun parce que dañoo seetlu ni que euh, feebar bi dafa am ñi nga xamante ni daanaka dafa leen yomb ñu am ko ndax dëkkuwaay yi te étudiants yi tamit ci la ñu bokk donc ñu ñëwoon tey di leen yee di leen xamal feebar bi tamit di yaakaar ak di di liggéey ak ñoom incha allah pour ñu mën a dem di di wasaare xalaat bi ñu fi indi tey at information bi ñu fi indi tey ba ko defee ñu mën a aar dëkkuwaay yi aar seen bopp aar tamit ñi nga xamante ni la ñu dëkkal donc looloo doon tey suñu taxawaay fii ànd ak district bi ànd ak tamit euh, des outils yi nga xamante ni affichage yi ñu bëgg def si biir université bi waa PNT ñoo ñu ko jagleel ñoo ñu ko jox ndax ñoom ñoo yelloo lépp lu jëm ci wàllu support promotionnel ndax programme national de lutte contre la tuberculose dafa soxla vraiment que la la communication se fasse de manière massive ñëpp mën jot ci lépp lu jëm ci wàllu tuberculose si biir ci biir gox goxaat mm-hmm, dëgg la dëgg la euh, étudiants yi dañoo nekk ñi nga xamante ni dañoo jeune te feebar bi xam nañu tamit ñi muy gën a faral di di dal dañu c'est des populations jeunes ñi nga xamante ni ay ndaw lañu lay faral di di di di dab boole si tamit dafay faral di dab ña nga xamante ni dañoo dañoo am stress li ñuy wax stress stress mën naa nekk feebar mën naa nekk sax ci sa dëkkuwaay wala ci ni ngay dundee nga xamante ni étudiant bu nekkee ci période examen war a jàng bëgg a tekki dafay ànd ak benn xalaat ak benn gëm-gëm ba nga xamante ni mën na stimuler sax son son système immunitaire ba nga xamante ni feebar dina ko yomb daal daanaka rax ci dolli tamit dëkkuwaay yi xat na te it xam nañ ne Sénégal étudiants yu ci bëri ni ñuy dëkkee dinañ dépasser nombre bi nga xamante ni moo war a nekk ci biir néeg yi dañuy xëy dem jàng ji tëj néeg bi bu ñu wàccee dañuy faral di tëj bu ñuy fanaan donc loolu yëpp day tax ba nga xamante ne feebar bi pour mu pour mu law day yomb. parce que feebar bi li ko mën a aar bokk na ci li ci mën a aar bokk na ci naaj bi di dugg ci biir dëkkuwaay yi donc bu ñuy faral di tëj tout le temps. loolu day indi problème looloo waraloon tey ñu ne faw ñu ñëw waxtaan ak ñoom ñaax leen xamal leen yee leen bu ko defee ñoom tamit ñu mën a am jumtu jumtuwaay at information bi nga xam te leen permettre ñu mën a lutter contre la maladie. waa dëgg la euh, tey ci suñu wàllu liggéey bi ñu doon def ànd ci lëkkaloo ko ak district sanitaire de Thiès xamale nañu ni que fii am nañ fi juróomi étudiants yi nga xamante ni feebar bi jot na leen dab ñu ngi ci faju ñu ngi leen di saytu bu baax te incha allah dinañu wër. waa ñun nag dañoo dañoo lëkkaloo ak ay kuréel yu bëri mais daanaka si biir Sénégal yëpp ci quatorze régions yëpp plan li ko tax a jóg wax dëgg fa yàlla mooy liggéey dem seet ñi nga xamante ni dañoo feebar bi daa nekk si ñoom te yëguñu ko xamuñu ko ndax xëy na amuñu seen euh, ci seen ci seen xam-xam information bu doy bu leen xamal ni lii dañoo war a jóg du sëqatu neen kese donc képp ku nga xamante ne yaa ngi sëqat lu ëpp fukki fan ak juróom war ngaa mën a njort am njort rek. la ñu wax nga am njort bu ñaaw ni ko xëy na doomu jàngoro tuberculose mu ngi ci yow ba ko defee nga jóg dem seeti saytu ci sa bopp donc noonu la ñuy faral ñun di liggéeyee ak euh, ak euh, ak askan wi pour vraiment mën a jël 33 pour cent de personnes yooyu euh, de de yooyu nga xamante ni ñu ngi leen di wërti gisuñu leen parce que structure sanitaire yi ñoom ñu ngi def lépp lu ñu mën wax dëgg fa yàlla mais ka toog këram ñun ñoo leen war a mën a dem jëli ji xëcc leen indi leen denk leen ñi nga xamante ni dañoo xarañ te lool rek la ñu xam ci liggéey bi ci wàllu tuberculose. jugé nécessaire de mener une activité au niveau des universités où les étudiants constituent une population vulnérable face à la maladie vu les conditions d'habitation et le stress auquel ils font face, hein, qui sont des facteurs favorisants au développement de la maladie. En plus de ceci, la région de Thiès est quand même euh, la deuxième région qui concentre la majorité des cas, avec 15% des, euh, à 15% des cas. Donc, euh, pour dans la même lancée que nous avons fait au niveau de l'UCAD, au niveau de l'Université de Dakar, nous sommes aujourd'hui accompagnés par euh, le district sanitaire de Thiès pour venir au niveau de la de, de l'ENSA, discuter, échanger avec les étudiants, les sensibiliser et espérer euh, surtout de faire de, des relais pour porter le message contre la lutte contre la, contre la tuberculose. Oui, dans une certaine mesure, c'est un milieu favorable contre la tuberculose parce qu'on sait que la tuberculose est une maladie contagieuse qui se transmet d'une personne à une autre sans des conditions sont réunies. Souvent, il s'agit d'un confinement, il s'agit surtout de la promiscuité et d'un habitat qui est mal ensoleillé. Et qui connaît les conditions d'habitation des étudiants, c'est qu'ils sont probablement et ils sont exposés à, à, la maladie. En plus de ceci, ce sont des, des populations jeunes et qui sont exposés aussi à un, à un facteur de stress par rapport à, à, à leur, euh, à leur avenir et à leurs conditions professionnelles estudiantin euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, en plus de l'âge jeune, en plus de la, de la, de la des conditions d'habitation et en plus des facteurs de stress, les expose vraiment à être, euh, à être atteints par la maladie. Alors, euh, sur cette question, nous, niveau communautaire. Donc, on sensibilise les communautés et on essaie de tirer justement, c'est les, les, parce qu'au Sénégal, nous avons environ 33% de personnes, de cas qui sont manquants. hein, qu'on qu ne retrouve pas par la maladie. Donc nous les communautés pour essayer de, les indicateurs et de tirer ces 33 personnes des structures sanitaires. Et ce les structures sanitaires qui prennent en charge les patients que et parfois même qui les renvoient au communautaire pour les suivre. je pense que ce matin, nous avons entendu communication du district sanitaire de Thiès qui effectivement confirmait qu'il y avait 5 cas au niveau de, de la région qui directement gérés encadré par le, par le district sanitaire. Oui, donc euh, l'activité la, euh, aujourd'hui en réalité, c'est au-delà même des étudiants avec qui nous partageons l'information aujourd'hui, de prendre les outils promotionnels dédiés et qui, sont, qui, sont, qui, ont, qui ont été mis à notre disposition par le Programme national de lutte contre la tuberculose, qui est un partenaire de taille dans, dans, ce travail et nous allons afficher ensemble au niveau du campus et nous allons aussi remettre quelques affiches aux étudiants pour leur permettre plus tard de continuer à faire ce travail-là au sein de ce campus et nous projetons d'aller au-delà même de Thiès dans d'autres universités comme nous l'avons déjà fait hier au niveau de Dakar.